auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ba tey ñu ngi ci xalil bi ñu ngi jàng nag baabu saw mi buntu koor nee na yasbutu dina sax yasbutu dina sax ramadaanu wero koor dan saxe bi kamali Sabana ci barax lu wax fanweeri fan aw biru yeti hadd layni aw biru yeti hadd layni wala gisuk ñaari way mandu ño gis wéru ñaar ñu mandu ñu ne bon jaww ji dafa am ay niir motax ñu bari mënuñ koy gis mu ne walaw bi donte kon asamaan ci dafa nekk bu set wecc ñaar ñu ko gis bi misra ci dëkk bu mag ni ndar toll asamaan si set wecc ñaar dong gis weer wi weer wa sax na te wen neuf la du trente léegi nag buñ demee ba xool fanweeri fan gisuñu weer wa ca weeru koor wa kon ñu ne kon ñoo ña wax ñu woon dëgg moo tax mu ne ko fa in lam yura dem gisee fuul weer wa ba da na gannaaw fan weeri fan sax wan asamaan si xuuri set wecc kon kus sibaa wi def leen ñoom ñaar ñoo xam ne bay waxee ne la woo jeexoon na gisoon nañ weer wa waxuñu woon dëgg waxuñu woon dëgg dañu waxoon ne la ñaar ñu màndu aw mustafidatin wala mbooloo mu bëbb ñoo gis weer yi mbooloo mu baree baree bare kon weeru koor wa saana mu ne wa amma matale na nag gis ga matale na waaye in nuqila ndem toxaleef na xibaar ba bixima ci ñoom ñaar xan xuma wali la ñoom ñaar muy ñeent buñ toxalee xabaar ba ci ñoom ñaar xan xuma wali ñoom ñaar lan mooy bihima mooy bil xaddilay ni wal mutafidati xan xuma ay noonu la muy ñeent nee na bu dee ñaar ñu maand ñoo gis weer wi yóbbu ko ca rajo ba ñaar ñu mandu siwal ko ñepp war wor ni benn masala bu dee mbooloo mu bari ñoo gis weer wi yóbbu ko ci commission ba mbooloo mu bari siiwal ko weer wi sax na muy ñaar bu dee ñaar ñu mànd ñoo gis weer wi yóbbu ko ci commission ba ñu mbooloo lañ kon ñaar jox mbooloo mbooloo siiwal weer wi sax na bu dee mbooloo ñoo gis weer wi mbooloo jox ko ñaar ñu maandu ñu siwal ko weer wi sax na ñeenti yaa ngi ñëw ñaar a gis ñu maandu jox ñaar ñu maandu na ñëpp xoor ñoo gis jox mbooloo mu bari na ñëpp xoor mbooloo mu bari gis jox mbooloo mu bari na ñëpp xoor mbooloo ñoo gis joxoon ñaar ñu mànd ñëpp woor ñeent yaa ngi noonu ne laa bi mun faridin boo xam nag du am ci kenn koo xam ne aji wéet la ci ngirum Malik kenn moom du ci siwal weer ci musubu Malik laa bi mun farid bi mu ne ah illaa ka lu may ñu demee nii waa këram ñooñ de bu leen neexee ñu woor kenn moo gis weer wi kenn nit dong dong kon njabootam ga mën nañ ci ca moom ndax xam nañ jikkoom xam nañ numu mu numu nu kon ñoom bu leen neexee woor ñu jong mu ne ah wa man ak ñepp ñi nga xam ne lax dinaa de sonne luum ñe luum ñee leen dem di ci mbir woor mbir mbiru weeru koor koo xam ne doo séntu weer sañoo weddi da la wax donte kenn gis weer wi ne gis naa ko yow yaa ngi yaa ngi nekk sa biir néeg sañoo ne feeñut képp ku ne sonne weer buñ ne feeñ ne sañoo weddi wa man lax dinaa lahum bi amrihi mu ne wa ala wa ala adlin war na ci ku maandu gis weer wa aw marjuwin wala kuñ yaakaar kàddum te gis na weer wa war na ci moom lan ru rafon ru'yatihi yëkkati gis-gisam bu yóbbu ko ca mbooloo ma ku maandu na ko yóbbu jox ko xaakim gis na weer wi wala koo xam ne kuñ yaakaar la na di yóbbu xaakim ne gis na weer wi dégg bi nee na wal muxtaaru lañ jëlee ci laxam bi nag ca wute ba ca mbooloo ma wa xëy ma ak ñu ñaar di laxam bi ne même bu dul koo xam ne commande la wala ku dul ku ñu yaakaar yi nag te gis na ko na ko siiwal rek bu ñu buñ daggee nag ñoom ñii kenn gis weer wi ñu ne ko duñ duñ xoor wala kenn ku mànd ko wala ki ñu yaakaar te ñu gis nañ ko jaaran nit ñi bañ rek ñu dagg fal qadaaw kon danañu fay wal kafaaratu ak kafaara mhm. wal kafaaratu mu ne ah illaa bi ta'wilin illaa bi ta'wilin fekkee dafa am fu ñu sukkandiku seen pas mooy ne koor daa waruñ gannaaw nit ñi xooruñ ñoo ñëpp a yem rek gom ko wedd nit ñi duñu woor ko ba nek faara wala ko faara fa tawilaani ci mu dawal fa tawilaani waye mu ne weeru koor nak du sax ci calendrier calendrier du ci sax de dedet deng na bu de calendrier mom moom ñoom ci moo kon laaj bi mu na jimin Deng, nga du sax mukk nak calendrier du sax ci calendrier la mën a jimin yéen mo wax ne sallallahu alaihi wasallam sallam nem ne kasal mën a wala sadaqo ne ñi nga xamni ñoy yor hel mënu jom bi di wax bi diw nangam bi diw nangam ne ñom di wax di wax deug dante wax nañ deug ben yoon sax nag ay ay waxati lu lu amul lañu dante wax ne lañu wax deug yéen moo wax dégg nga ne wala iftum du dagg déggal de safaan baa ngi noonu de un faridun aji wéet ah, kenn ku gis weer rek kenn ku gis weer du dagg bi sa wàll bi ko teg masal bu doy waar la kenn koo xam ne dafa gis wi ñu weddi ko bu ba correcté nag mu moom kenn ñu weddi ko ñu moo la ñu moo la dagg ñu <laughs> moo dagg bu yaatunu ne dagg mun fa aji wéetaay aji wét ci gisa gisu bu yaram dégg rek du dagg mun fa dun kenn ku gis weer bi sawaar yi mu sa ko teg ah ñu ne déet waaye xanaa bu gisul weer wi mu ne wala amee doonte kon wóor na wóor na ko suuf rek a feeñu weer wa di gis na ko jàkkee moom gis na weer wi waaye moom kenn la du dagg de mu ne ah ilaa bi mu bihin nag lu muy aji daganal ak lekkam ak ak naanam xam lu ma xam masalan def na gis gis na weer wi gëmuñu ko moom kenn la mu xëy feebar wala muy tukki kon dagan na dagan na du dagg bii nag du dagg bii dañ koy taawil de mooy du ko manifester du ko manifester ci mbedd mi dogg laax ak mel noonu ah dugg néegam rek moom kenn gis na weer wi jaaxaran ah kay dafay dagg kay da dagg kay waaye bu ko def ci mbedd mi dem jënd mburum ak wuti kafeem yooyu ah nee na wa fii talfiqi saahidin nekk na ci boole ajis gis weer awaloo ci njëlbeen ba ñu weddi ko moom kenn moo gis ci njëlbeen ba ñu weddi ko dem bay xori keneen gis weer te boo boolee seen ñaari wax yi day doon dëgg moo tax mu ne kon li aaxara ñeel keneen ay xuloo ci mujj ga tara dun ca mujj bind ba am nañ ca dengi dengi weer wi neuf la sëñ Mor ne man de gis naa weer wi tey ñu ne ko ngiru Malick nag moom kenn du tax weer sax ñu bañ moom mu xoor li ñu ñuy dem a dem dem ba wen neuf ca koriga sëñ Bass ne gis naa weer wi gis naa weer wi te bu ñu xoolee fi suñu war gisoon weer wi ko gisee mom benn ñaar fa ak ñent la et ce ñu bolé boole ñoom ñaar bu melni ni ñoom ñaar gisoon door ci njëlbeen ko ñun ñëpp julli ko hor doon fay ko hor doon fay wal diñ ko def moy tara dudul déngi déngi mu ne ba tey wala so mi nek na ci waru ko xor weeru koor bu kumil muqalifi ci atte kuute ñun ci ngir yi bisay ci ben seede ngir mu musaafe ñoom benn seede rek bu gisee weer wi ñëppay xoor léegi nag bu fekkee dafa ñëw fii ci senegal wala beneen réew koo xam ne imam Saafi yi ci moom lu bokk mu ne gis na weer wi xaadi bi ne kon na ñëpp xoor wala imam akbar bi ndax dana dana war du war am nañ ci déngi déngi ndax it nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na ne am na ku ne gis naa weer wi moom kenn mu ne bilaal yi bàññeel yi ñëpp waroon loolu am na dégg nga su daala asimu bala ko solul karim